seen site Dakar Matin moo leen di may seen revue de presse ak Pape Alé Niang bisimila coow li amoon ci kërug justice bi daanaka yéenekaay bi la Témoin mi ñu yëgal ne fi mu nekk nii ñu bëri ñu ngi soññ Macky Sall ngir ñu xool nan lañuy ñuy saafara mbir mi dem nañ ci sax ba wax Mamadou Badio Camara ne lii jaru ko li nga xam ne moom na la président bëgg a defal di mbuur di muraake jaru ko bàyyi ko ay ministre timit ñi wax ak président de la république ne ko ngalawaaye laale diggante justice ak sa nguur matu ko génne li nga xam ne moo di texte bi teg fële comme magistrat yu baree bari d'accorduñ ci Touba ba tey jii di wéy ñi nga xam ne ñoo di kujje politique di dem di nemmeeku sëriñ si yéenekaay bi la populaire na ay adversaire u Macky sàll ba ñu demee Touba lu mel ni xeme yàq nañ ko fa ñu tàmbali ci kan Idrissa Seck ñu ne ko waaw Idi dil bi nga doon wax mu ne loolu pare naa ci ba ma ci waxee laa ci noppi yéen a ci des yéen kay yéenay doo ko xam la ma waxoon waaye man li ma ñor ba ñor ma moo di métit gu tar gu askanu Sénégal di dund jamono yii fi mu nekk nii sonn lott lool loolu rek ma ñor ci biir yéenekaay bi di laas mu ne boo leen gisee insécurité bi bëri fi lool Macky sàll am na ci wàll bu baree bari ndax nag yorul réew mi ni mu ko war a yoree ñu ne ko waa idi ci processus électoral bi nag yéenekaay bii Le Quotidien wax ñu lu mel ne Idrissa Seck xam nga lu mu xamle nee na ci ni ñuy tabaxee lii di carte biométrique yi ca dëgg-dëgg bëgg nañ cee fraude fraude boobu la nag loxo Macky Sall mu nga ca biir parti démocratique sénégalais jël wàllam moom it ca Touba la toll ci biir yéenekaay bi Le Populaire xamle na Macky Sall ci boppam moom moo organisé exiger ñu exiler ki nga xamne modi Karim Wade genné ko réew mi yobbu ko dawa lepp Macky Sall moko togg ba mu ñor def ko madike ci yene kay bi di las ñu ne kii di Karim Wade leg mu dellu si waaye madike ñaa démb wex na xatt ci nena yëral yene kay bi la populaire na ba mu nekkee ci résidence xaadim rasul na day yëkkati kaddu di wax xale yi nekk ci di ko yuuxoo wuu na ko ak Omar Sarr jaay ngeen parti bi bu yàgg-yàgg luy njiig ngaak yéena teewul Touba ba tey jii ci wàllu diine nekk nag béréb bu sell lool yëral yéene kaay bi l'observateur kay spécial la ko jagleel jëm ci màggal gi du ñu wax kuy xaadima rasul na tukki bi mu defoon sa sarsara foofule nga xam ne gàddaay la fa nekkoon mën nañoo wax na ci désert bu nekk ci Mauritanie fa la jotee wird murit ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ñu yéenekaay bi di l'observateur xamal te ji l'observateur yokku ci leneen ne am na histoire bu doy waar bu am ci diggante Kër Nganda ak Serigne Sidi maxtar Mbacké waxit lu doy waar ci ki nga xam ne moo di Cheikh Ibra Fall jar naa yër yéenekaay bii di la témoin nee na demal ba New York benn moodu moodu desitu fa ñëpp Ila Touba ñëw rekk màggal si moo leen ñor waaye maire bu jas dugg na nag ñu rubba yëral yéenekaay bii di laas ne dem ba ci OFNAC dénoncé ko pour faux escroquerie foncière ak corruption guerre nouvelle bu neex yéenekaay bi Le Populaire xamal ñu ko tey jii ne pharmacien yi waxoon na garde ñu dañ koy boycotté bàyyi nañ coow loolu le taalasi la transhumant la léegi yéen a le quotidien moo ñu ko yëgal te ji nee na ma ngay fecc wàngo ak waa APR bu sàgganul sax mu fental leen way ndax ay na ci torop jërë ngeen jëf si déglu bi ñu leen dig daje soo jëm seen si dakar matin point com incha